ñu sojje taxaw ba pare nag pare ngir dem ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmala journal bi nee na Abdoulaye Wade pare waat na ngir PDS daal jotaat ci Sénégal yéenekaay gi de L'As xëy ñu xibaar naan ñu élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmala en tout cas li am coow li bëri na ci lool Lamine Gueye mi nga xamante ni militant la ci République des valeurs bu Thierno Alassane Sall ca diwaanu Pikine Nord nee na Amadou Diarra mi nga ni mooy maire bu Pikine Nord Amadou Diarra est un politicien qui la mi nga xamante ni ci république des valeurs bu Thierno Alassane Sall la bokk di milité ca Pikine Nord yéen a kaay gi délibération xëy duñu xibaar naan ñu élection locale yi dikkagul waaye nag tàng na jër ndax nag préfecture bi nga xam ne moo nekk sa sigi cooro foofe nag waa APR ak waa Pastef bu Ousmane Sonko ñoo fa doon jàppante dañoo xeex ba na saaye jàppante boo xam ne jàppante bu tàng-tàng la yéen a gi di ko nee na coow am na te élection yi ñëwagul ndax la moom nag dañu ko inspecteur fi nga xam ne mooy mairie bu Grand Dakar yéen a kaay gi di laas bàyyi mbir moome nag wax ci lu jëm ci wàllum koom gi nee na marché régional des titres publics de l'UEMOA Sénégal nag am na lu toll ci cinquante cinq milliards ca mbir moome yéen a kaay gi di Le Quotidien di ko dëggal waaye nag njëg yi nga xam ne jamono ji yokk na ba maara day taale loole nag tax na collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom nee nañu ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmal danañu wàcc ci mbedd mi maanaam danañu amal ay marche daan nañuy lancer opération fay jot na ndax nee nañu Macky Sall dafa tooñ ñi nga xam ne ñooy askanu Sénégal maanaam dund gi métti lool ñoom collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom na dañoo bëgg a sanctionné ñi nga xamante ne ñooy nguur gi ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la yéen a kaay gii ñu Union nationale des ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum commerce ci njëg yi nga xam ne dafa yokk ñoom nag daan nañu joxe li nga xam ne mooy ay recommandation ci yéen a kaay gii di Les Échos ñoom waa INSAS nee nañu nag ba muy tuule daanañu dem ci li nga xam ne mooy ab ñu xamal na naan ñu njënd njaay mu ndaw mii jamono ji ñi nga xam na ñoo ci yëngu sonn nañu ba maara day taal yi bi nee na jën jamono ji cher na waaye ñu bare bari tegatuñ ko bëta yéen kaay gi di lee foo xëy du ñu xibaar naan ñu askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Touba ñenn ci ñoom na ñu ba maara day taal yi tey ji nag ministre bi ñu dénk kaaraange réew mi nee ma Félix Antoine Abdoulaye Diome moom tey ji dina dem ci Touba ci bërëb yi nga xamante ni mbënd ma dafa am yéen kaay gi di l'observateur nee na mbir mu doy waar moo xew ca Gandigal Gandigal nag dafa am benn ciment ak benn fer boo xam ne dañu koo dajale woon nag ngir daal di si tabax ab brigade gendarmerie ñu daal di koy sàcc yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu gros porteurs yi ne ma camions yi camions yi diiru fukki fan ak juróom rey ñu lu toll si ñaar fukki nit yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak waykat bii di Lady Mounass artiste la mannequin la woon yéen kaay gi ne na baayam nag ci boppam nag musuta nangu mu dugg ci sow biis bi moom Lady Mounass moo ko xamle ma ngi ci Rewmi Quotidien daan nay wax nag ay jafe yu bare bari moom jànkonteel na ko ci biir showbiz bi lu ci mel ni promotion canapé daan nay wax ne nag moom daal dafa sexy moom assumé na ko daan nay wax tamit ne provocatrice la ci ni nga xam ne moom lay solo waaye nag nee na daal man ni may solo provocatrice la waaw sexy na lool waaye nag loolee daal taxul ma bon single bi nga xam ne nag defoon na ko fi di banana single boobee na maanaam tojoon na jamono ji nee na nag jot na ci ay critiques yu bare bare yéen kaay gi di enquête nee na am na benn enquête boo xam ne ab ONG daan na koy def ci lu jëm ci wàllum cagatu gi nee ma jigéen ñooy jaay seen bopp ci Sénégal bi ñu ko xayma 74 pour cent ci ñiy jaay seen bopp ñu dañu leen a violé ba ñuy xale fa la ñu jógee nag di jaay seen bopp am na lu toll ci 6 pour cent li tax ñu dugg si jaay seen bopp ñu dañoo soyoon ba tas am nu lu toll ci 7 pour cent ñooñu nag vice la ñu amee yéen a kaay gi de l'observateur nee na nag dafa am benn prostitution clandestine boo xamante ni jamono jii dafa am am na ay xale yu jigéen yoo xamante ni dañu yëngatu ci lu jëm ci wàllum njënd ak njaay mi dañu koy taafantaloo de commerce boobu dañu koy taafan jaayanto la waaye nag ci gare routière yi la ñuy dem ak ci marché yi di jaayanto fekk na yoo prostitution clandestine la ñuy def du suñuy kàddu ma ngi ci l'observateur yéen kaay gi dee sat xëy ci éliminatoire mondial 2022 ci diwaanu Amérique journal bi nee na choc bu mag am na niki diggante Brésil ak Argentine yéen kaay gi nee na Afrobasket bi tey jii la demi-finale diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire bu ñetti waxtu jotee yéen kaay gi di sunu lamb nee na Balla Gaye numéro 2 ma ngi ci diggub cercle boo xam ne bu tàng jër lay doon ndax Balla Gaye numéro 2 dafa am ñeenti ñetti yoo xam ne benn yombu ci Balla Gaye ana nan lay def ak B52 ni mu Bombardier Balla Gaye numéro 2 nan lay def ba génn ci combat bi war a dox digganteem ak Boy Niang numéro 2 Balla Gaye numéro 2 ana nan lay def ba génn ci combat bi nga xam ne moo war a dox digganteem ak Gris Bordeaux Balla Gaye numéro 2 ana nan lay def ba génn ci combat bi war a dox digganteem ak Eumeu bawol info point moo leen di jox i xibaar yu gaaw te wóor ay yu xarañ